مرسل الشفاء والدواء حمدا لمرسل الدنا والداء ومرسل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من ثم استثمرت يبرأ بلا بد وفاز بالخرج محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم ولا لوسف سوي العلاء ما تاج سوء أزكى من الصفاء هذا وإن اليوم سوء أوجاعي مبتقيا عون المجيب داعي واسكي إليهما من الدرر هل مسني عتى أراني مهتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا yaa rabbana yaa rabbana fahdur lana bi jaayi xayri aalamiin al akramin summa bi yumni ramadan al asamin yaa laahu yaa rahmaan yaa rahiimu yaa barru yaa kariimu yaa wasiimu igfir zunubana taqabbal minna wahmi himaana wa tajaawaz anna wa ansilan yaa rabbana xayra niham مكان ما نخاف من شر محن وهب لنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والرسايا وهب لنا الحرص على التواتي وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ولا يا سافي أنزل صفات مكان دائم ci turu askanu Longhor yëpp indi ab yónnente tamit boo xam ne magi longoor yi ñoo ko ko yónni moo ànd ak njaboot gi nga xam ne ñoom la àndal teew fi kanam Serigne Cheikh bi ñu ñëwee jël Serigne Cheikh mii jëwri ne ko liggéey bi nga xam ne moom la liggéey teg ci seen kanam ànd ñoom ñëpp ñëw teew ci sa kanam yow mi nga xam ne yaa fi teewal maam si ànd moom nga xam ne moo yaakaari ëtt bi sëñ Mbàkke nee na mboolem askanu longoor ñu ngi sant maam Cheikh Anta ci jàpp gi nga xam ne jàpp na ko jëmm jii di sëriñ Cheikh te yemalewu kook dara ndax nee na de dafa firndeel ne la nga xam ne moom la waajur ya dab ji woon ca maam Cheikh Anta borom gaawaan ba ba maam Cheikh Anta jëlee loola jàpp ko nee na da leen koo defaral ba mu taaru mu delloo si leen ko Longhor kon nee na ñoom askanu Longhor yépp ñu ngi jariñu ci njariñ loo xam ne maam Cheikh Anta rek tax ñu di ci jariñu kon nee na bis bi bu ñëwee nga ñëw teewal fi maam Cheikh Anta ànd ak ñoom bis bi nee na dañ ciy delloo cant maam Cheikh Anta moomee rek. di yeesalaati tamit mboolem njébbalu waa Longhor ak seenu taalibe ak seen kóllëre ci maam Cheikh Anta moomu nee ko ko Longhor gërëm la maam Cheikh Anta moom sëriñ mu Rokhaya nee ko ko Longhor gërëm la. nee ko ko Longhor jàpp la nee ko ko Longhor am ci moom ak cofeel la ndax ñoom ñi nee fu fi waay mën ne mënoo bàyyi Longhor ci saa yu ñu del see longoor rek gis fi taar boo xam ne cofeelu maam Seex Anta aku ñaanam moo ko indi ci dëkk bi ba ci diggante kaw asamaan si ak suuf si jaww ji nga xam ne moo tiim liy longoor ak suuf si nga xam ne moo taatan luy longoor yëmut fi ko wër ci bëggu maam Seex Anta moom yi rek moo ko waral aku dogoom ne at mu ne lu fi yëngu ak lu lu nawet ñàkk ñàkk ñàkk fii ci longoor ak li ko wër du ñàkkum nawet ca ñaanu maam si Anta moom rek ci lañ ko amee kon nee na nee ko maam si Anta na xam ne Longoor a ngi koy ñaanal Longoor a ngi koy dagaanal ci barke mag ña yàlla na yàlla suñu borom def kiimtaan ci aw fanam mu gudd loor ci lépp ànd ko wér. nee ko daal ñu ngi ñaan ak a doog ci baaxub Longoor barkeb Longoor bu déwénee na am wér péng ba mën a ñëw te bis bi. ginnaaw bi mu indiwaat rek cant goo xam ne askan wi ñoo ko sant Serigne Cheikh ndax na ndax Serigne ñun ñëpp nga xam ne bi nu juddoo yàggut ak ñanu jiitoon di suñuy waajur ak suñuy maam maanaam sëriñ Cheikh mi xamuñu lenn lu yokk ci moom lu dul kawar gu weex waaye noonee nga xam ne ni la meloon te ba muy ndaw ba ni muy mag wenn melo yi rek la muy jub te tegu ci yoonu siraatal mustaqima doon itam ay maamam yoo xam ne loolee rek ca la nekkoon te fu maamam yi bàyyi woon mbir ma nag nee na fi ko sëriñ Cheikh yóbbu moo raw foofa nee na wane na ne xam le xel ne bërëb bii ña doon jaamu yàlla suñu borom nangu na seenu jaamu nee na moo tax saa su ne muy taaral bis bi di taaral dëkk bi di taaral mbokk gi di jàppale ñëpp kon nee na mbokk Longhor askan wi nee na loolu rek doy na ci ñoom ñuy sant sëriñ Cheikh mii di ko béral ci sa kanam nee na gëmm la jojit ñu ngi koy dénk sëriñ Cheikh rek moom duñ sax sëñ Cheikh dara ci moom comme niñ ko waxoon sëñ sa démb rek nen daal naa naa na ko sëriñ Cheikh dugal ci biiru tànnam li sëriñ Cheikh tànn ci moom rek nee na ko na ko defal askanu Longhor wépp ñun sant nañ sëñ Cheikh bu baax a baax mboolem askan wépp nga koy sant ay baayam mi ngi koy sant ay nijaayam mi ngi koy sant ay magam mi koy sant ay rakkam mi koy sant waa dëkk bii nga xam ne ñoom la jaboot yi tamit ñu ngi koy sant ndax dëkk bii nga xam ne kat ñoom la àndal liggéey bii ñii nga xam ne ñoom la fi jamonanteel wóor na ko ñooñee tey boo liggéey ñoom la seeni maam di sagoo ndax sëriñ Cheikh defar na leen defar goo xam ne xóomanu maamam sëñ Mor Xujja Mbay sëñ Mor Xujja defoon wala bàyyam sëñ Abdou Xule xamuñu nu mu taxawoo woon ñooñee waaye taxawaay bii nga xam ne moom la sëriñ Cheikh taxawoo njaboot gi fi ne ak ndaw yi de boo liggéey nee ñoom seen maam yooyu ñoom la ñuy damoo nee na loolu nag doy na sëkk ak defara doy na sëkkit ci teewal suñ borom ca wuutu ko ci kaw suuf ndax suñ borom saa yoo ñëwee rek ci lim li fi indee saa su ne daa war di taaru di gën di gën di baax di gën nag nee na noonu yi la ànd ak njaboot gi njaboot gi dañ koy xëy di ko gën di bëgg di gont di ko gën di bëgg saa su ne xolub koo xar ci biir dëkk bi bëgg sëriñ Cheikh rek nga cay fekk te nee na jëfi boppam ak jikkooy ak taxawaay boppam ci njaboot gi rek moo ko may kon nee na mbokk mboole mboolem askan bi ñu ngi ko ciy sant ca di la ko seereel nga yóbbaale leen cant googu ba tey ci sëriñ Cheikh jërëjëf. sëriñ ji li nee mi ngi yëkkatiwaat ay kàddu yu nuyoo ak ay cant yu bàyyi ko ci moom jaar ci njabootu suñ Modou Rokhaya gépp waaye bàyyi ko ci sëriñ Seex ci kàddu yi nga xam ne nee na dégg na ko ngeen yëkkati ko ak jëf ji ngeen jëf te seere ko nee na nag mu doon loo xam ne lu dal am xelam la waaye lu sedd ab xolam la ndax nit boo amee ak njëmbat fi barab seen ku yor ndox di ko ko suuxatal dana xam ne kee bëgg na ak njëmbatam jebbi te nee na sëriñ Seex njëmbatuk sëriñ moo du Rokhaya la ci Longoor kon képp ku yor ndox jëme si ci njëmbat gi di ko soose yaa ko gënal ku yor si jëm si ngir di ko faret kon nee na xelam dal na xolam gën naa sedd ci ne ndakate bokk yi nii lañu àndeek sëriñ Seex nee na mi ngi di ko yóbbante nag ci askan wi yëpp ndax nee na ku leen jàpp bàyyi xel la ku xamit téer bi ngeen am ci sëñ waaye xaas di leen yàlla defal nag ci mam Cheikh nga xamante ne bii xàmmee wu coon buntu kër bu jébbuli ci mam ak bu ci jébbuliwut dafa jàppe woon ne kër gi kërëma dëkk bi tënd wi di aw tundam muy seen mbokk waaye lim fi am muy sëriñ Cheikh yéen ñëpp ngeen ànd jàppale ko topp ci ginnaawam nangu koo déglu ba noppi nangu koo jëfal kon nag mi ngi ñaan yàlla ci dara darajey liggéeyu mag ña yàlla na yàlla faj seeni aajo ci barkeb sëriñ bi. nee na nag kaddu yi muy jëmee ci Serigne Cheikh du doon kaddu yu gudd ndax la ko sëriñ Cheikh wax da koo doy sëkk ndax Serigne Cheikh da ko woo na ko dama bëgg ngeen demal ma Longhor ndax kenn doyu ma fa ak tële dong nga waaye kenn doyu ma fa waaye nag sëriñ Cheikh de maag moom danoo yem ci sëñ Modou Roqee sëñ Modou da ko jur jur ma ba noppi xaasal ko xaas joo xam ne wóor na ma ne ju ko yàlla beral la ci boppam waaye nag boole ñu ñun ñaar noonu mu ko waxee ne sëriñ bee ñu boole biig rek waxaan na ko ne sëriñ Cheikh mbay nekk naa ci sëñ moodu ba ci ati sëñ moodu yu mujj wala menn atam mu mujj la ma sëñ Modou booleeg moom ñu tàmbalee jaxasoo keroog ba ma ko njëkkee gis nee na du ma ko fàtte mukk fukki ruu ak ñaar la ma jébbal fukki nit ak ñaar la ma jébbal ci at man njëkk a gisee. boobee ak léegi teggi ko wut te mel na at lañ ci teg rek sëriñ du wàcc ab liggéey kon damaa xam ne sëñ bi dañoo boole woon ab liggéey bu ñu waroon a ànd maak moom di ko liggéey waaye nee na ndakate buñ boole wutoon sama liggéey neewu ma du àgg waaye kon du gaaw ndax nee na lu aw sas ak lu jëf yi rëy nee na buy ñëw am riiram du bari de kenn du ko dégg waaye su demee sama xel dana dal lool ci ne lii may jëf danaa ko sottal sama xel dana dal te nee na loolu mooy la ko sëriñ bi waxoon na ko ab taalibe saa yu sëriñ bi soxlaa gis ko amul njëriñ saa yu sëriñ bi soxlaa am xelam ne ci moom rek moo am njariñ waaye sëriñ seex nee na man fu ma jotee ndigalu sëñ Touba sama xel dana dem ci sëñ Cheikh Mbaye Longoor mii kon nag nee na jëf jii ba xam na ne su ko newoon bul dem Longoor nee sëñ Cheikh nee wóor na mën a tànkam du fa jam noonu la ko waxee démb biñ andee añ bi ñëw ba Longoor nga toggee fi ay añ sëfaat ko ci ab oto andi ko Daaru Salaam ba mu koy jox fekk koo xam ne moo sëñ mut Roqee ñoo bokk daanaka néegum ndey sëñ Modou moo wax ne Abdou Dieng bi ma jógee ci loxoy sëñ Modou Moustapha muritu ko ba wàcc 1942 bi ma ñëwee maa ngi moom ñoo ànd dem ci sëñ Fallou maa moom ñoo ànd dem ci sëñ Fallou baayam sëñ Modou Dieng dogal moom la soxna Roqee jàppe woon càmmiñ ndax mook mook rakki soxna roq Roqee ju ñu wax sëñ Màkka Touré moom rek la amoon ci mu bokkal ndey ak baay sëñ Màkka moomee ak bàyyi Serigne Jëng Ndogal daawuñu tàggoo looloo taxoon soxna Roqee jël Baye Serigne Jëng Ndogal def ko muy càmmiñ muy muy muy muy muy léppam Baye Serigne di nijaayi sëñ Moodu joo xam ne taxawu na ko biir taxawu ko biti dundam jëpp di sëñ Moodu Maamun genn doomam ju mas a may sëñ Moodu Roqee amut. loole kon sëñ Abdou Dieng sëñ bi day jàpp ne doomi sëñ Modou ya euh, day jàpp ne moo sëñ Modou Rokhaya ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kookee nag bu liggéeyee ba wàcc ñu war koo dëjal nga xam ne ñi ñëw ca dëj ba dañoo war añ sëñ Cheikh mbay indi fa ab añ nee na day jàpp ne kii moom borom baatin waaye ki demit borom aajo ju faju la kon nee na loola képp doyoon na doon doyoon na sëkk ci teraanga teewut waaye mu ne nañ xëy ñëw bi ñuy ñëw sëñ Mambala lañ àndal sëñ Cheikh Gaynde ay doomi sëñ Modou Rokhaya bi ñëwee ba ci yoon wi ba tool Darou Moussi lañ woote waat téléphone ne sëñ Mame Balla way juróom wàcc na nga xam ne kooku sëñ Modou Rokhaya ko yoroon waaye teewut moom ci boppam sax moom sëñ Mame Balla daf ne bi may woo sëñ Jili dama ko bëggoon na ko dama am yitte dëpp rek ndax bëgguma ko woon a soxna wax soxna si ñuy ñuy kenn ci yoon wi di dëpp waaye ñëwoon ci otoom la la wàcc ñu dugg ci oto yi ñu ñëw kon sëriñ bi nee daal li mu koy fàggul di ko ko ñaanal te képp koo xam ne yaa ngi longoor loolu lay sàkku ci yow ngeen ñaanalal ko yàlla moo bàyyil ko ko fi lu yàgg lool te lépp ànd ko wér te it li muy liggéeyal sëñ Touba yàlla fay ko ko ci njaboot gi ba mu teg ci bëtam ba mu wóor ko ni yàlla fay na ko ko ci barkeb sëñ Modou Rokhaya jërë ngeen jëf. سرا وجهرا في بلايا الصمد لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في بلايا الصمد مدى لنا الاسلام والكفر معا وبالنصيحه لكل سمحا يقول بالسائل والباطن من